non non suma profession ma maa ngi koy laaj Macky ba tey mais waxu ci dara dama def ministre bi yor wàllum awra ci réew mi maa ngi koy laaj ba tey. <laughs> parce que dégg naa émission yi bari nga ne sexologue nga. bu mag am diplôme. yàgg na yow tam ñaari diplôme laa expérience ak kayit. Hmm. mais diplôme bi gën mooy expérience mais dama bëgg a xamal ne man suma professionnalisme. waaw mën naa juróom-ñeenti seet yu bokkul façon. te maaraañas ne fi. jàng mën maanaam jàng waxuma tappale de jàng. xam nga Sénégal dañu miin seetu fanatisme. Mm-hmm. ndeysaan xam nga Gaston bi mu feebaree dañ ko doon nëbb. Mm-hmm. yóbbu ko France faji ko. ñu bari yëpp mara yi génn ci télé promoteur bi ko tëgg na bàyyi xelam te fekk Gaston ngi tëdd hôpital yi France di faj. xam nga loolu dul la. c'est pas vrai quoi c'est pas vrai. mais dama ko ñu xam ne seet. seet seet ah. seet du lu xel di xalaat. Mm-hmm. saa yoo toogee seetkat moo wax la nga ne ko dëgg la rek mënul. li nga xam loo ciy seetlu. waaw mais sëñ bi wax rek mais bu ne ñoom dañuy dul. non loo ciy seetlu. <laughs> non lu ma la bëgg a expliquer mooy xam-xam seet. mën naa ci juróom-ñeenti façon. yow mi waxoon nga fi yow mi waxoon nga fi mais dafa ni man man seet man. Papa Ndiaye Papa ma gis Sénégal ñu dimbali seen non non am ko nee moom dafa la woo mais danga ni ko yow doo seet. non man soo ma woowee. waaw dama la naan duma seet nga ne ma ñaan loo booy dof loolu dama lay bloqué. ah ok waaw loolu la j'aime pas. ah bëggoo kon leer na li may laaj. du ma sëriñ man businessman la mais bu ko laaj loolu maanaam laaj ko li mu fi wax. waaw non dinañ jël si loolu ne woon na Balla Gaye day daan euh, Boy Niang. Boy Niang daan Boy euh, tey li ma la bëgg a expliquer ci sa laajte. bala nga ñëw ci moom bàyyi loolu lu ma la bëgg a expliquer su ma sa laajte bi mooy du ma sëriñ. parce que sëriñ métier la. métier la waaw defuma ko métier. ndax ñi ñu jàngal den daan am métier ubbi sa dara taal sa site internet. la preuve li lay wan ne du ñu sëriñ. yow leen yaakaar nga siwal leen. waaw. dañ lay neexal nga nodd nit ñi ñëw. waaw mais xanaa mënoo. donc naxante ak sëriñ du benn man bi ma gisee langue gi bon Nigéria ak Maroc rek leen may weexale hmm. su ma ñëwee wàcceeg millions yi diriyanke yi tiim ma. xaalis moom am nga ko def lu ma mais Sénégal fii soo ma wooyee dama lay bloqué.